tey philosophie ñetti sujet moo génn domaine 1 la réflexion philosophique à euh, domaine 3 domaine domaine 3 l'art et l'esthétique donc du coup on a associé l'art et le savant bon sujet bi nag xaar nañ lu gën a yomb nag sincèrement parlant mais d'après li ma gis xaw naa métti daan mais ça va c'était abordable. kon la déggee dafa saf. waaw saf sincèrement xaar nañ lu mooy difficile quoi. ndax li ngeen def tey lépp professeurs yi def nañ ko dans les salles. exactement def nañ lépp ci classe bi sincèrement moom on a tout fait def nañ man sujet nga domaine 1 la réflexion philosophique. léegi ndax na mbas mi par exemple distanciation sociale ndax yéen a ngi respecté ci bon si biir ca si biir salle classe voilà on a on des gels et tout ñi ngi am nañ ay gel et ku nekk aussi takk na masque am voilà et mesure bari aussi on a on a cela. Euh, Rokhaya Faye, élève en classe de na L2C, école privée Fallou Galass. Ah, xam nañ ni élèves moom dañoo am stress stress bi mun fee philosophie bi ça a été abordable dëgg yàlla. Il y avait aussi les surveillants qui nous ont rassurés, tout ça, en disant que ce sont seulement des épreuves, rien de plus, dalal nañ xel yi bu baax. loolu la ñu gën a motiver nga xam ne bañ ñëwee nekkuñ fi di paniquer genre dañoo ñëw comme si on faisait la composition bien des devoirs en classe. Euh, sujet numéro un ça a un rapport avec euh, la philosophie la philosophie réflexion philosophique domaine 1 euh, le sujet numéro 2 c'était l'art l'esthétique le sujet numéro 3, c'était un commentaire avec la liberté. Bon, j'ai choisi le sujet numéro 2 qui était l'art, l'esthétique. waaw sujet bi daal ni ma ko mën a waxee booy xoolee sujet yi moo ci gënoon abordable à ma faveur moo moo ma ci gënal j'ai pris le temps de lire de bien lire les trois sujets lire na bu baax ñetti sujets yi mais sujet numéro 2 bi daal la laa gën a sentir si la gën a gis sama bopp en plus j'ai appris les leçons leçon boobu jàng naa ko donc du métti fi man pour ma def sujet bi daal. preuve yi yomb na teet nañ ko si jàmm xam nga. bien vrai que xa xaaroon nañ xaaroon nañ yu xaaroon nañ lu gën lu gën a lu gën a difficile lu gën lu gën a jafe mais ñun daal li ñu li ñu traité ñu gis nañ ni daal c'était abordable franchement yomb na waa franchement on a eu à am nañ am nañ yaakaar ni que dina baax incha allah. bon man nag xam nga dama bëgg aar. je suis donc mën traité naa traité naa traité naa deuxième sujet bi xam nga dañu bi ñu doon wax ci art art kii dañ koy comparer ak savant yi aar nga xam ni aar moo am lópp solo si àddina bi. malgré Covid 19 bi bien vrai que njàng bi xawoon na perturbé wu tu donc mais quand même n'empêche on a eu à faire des ay jàngat yoo xamante ne si suñu école suñu classe yi jàngal nañ ci loo xam ni war nañu mën a permettre ñu ñu ñu ñu def épreuve yi ñu ko war a defee. canadien laa tudd maa ngi jógee Touba Jescap ñëw fii école privée Kagoura pour def si examen baccalauréat. examen yi sujet yi nan nga ko sujet ah, am na yoo xam ne abordable na ku nekk jël nga bi nga xam ne moom nga yaakaar ni nga comprendre ñoo ngi ñaan aussi ñu am ci moyen bi nga xam ne moom lañ ciy xaar incha allah. bu njëkk bi mu ngi wax ci domaine 1 buy wax ci réflexion philosophique deuxième bi art troisième bi liberté moo nekkoon commentaire bi. bu dee yow lan nga ah, le sujet de bi wax ci art parce que moom moo gënoon nekk à ma portée moo tax. yow boo gisee ci lan lay wax tënk ak niñ ko comprendre ah génne nañ ñii commentaire nee nañ am nañu def hors sujet mais ñun gëm nañ li ñu def et on pense que ni moom mooy li baax. ñun moom liñ ñu li ñu jox ci épreuve yëpp jàngoon nañ ko alhamdulilah. waaw bi moom mu ngi fi depuis daaw kon yaakaar naa commencé nañ ci di adapté wu respecté nañ mesures barrières yi comme ni ngeen ko gisee ñëpp takk nañ seen ay masques et puis jël nañ disposition yi war yëpp daal pour pour mën ci prévenir. ren comme ni ko waxee nii ren ñaari jours dina c'est le jury 1770 ak 1771 ah c'est une nouveauté nag mais on gère avec parce que tout se passe vraiment le plus normalement du monde ah élèves bi première épreuve jàll na ñu ngi xaar deuxième épreuve ngoon tout est calme y a pas d'incident des absents am na du ñàkk du par-ci par-là mais on gère quoi de toute façon daal ñun ñaan yàlla continuer ko rek jusqu'à la fin des épreuves quoi. amul benn manquant à part quelques absents des élèves yi mais séance bi mat na bon tout protocole sanitaire bi doon wax aussi jëppanti masque yeeg laabu main yeeg tout tout vraiment euh, prions le bon Dieu daal parce que lépp daal baax na ban affaire bi jàll daal. déggoo dara xale yi di wax jàngat ci sujet yi. sujet yi bon ñu ma jot a abordé man élèves yi est lan yeneen PC bi daal pour ñoom daal ça a été abordable ñu ngi naan yàlla daal yeneen épreuve bi ñëw mel ni moom. philo bi aussi nee daal xam nga rek philo moom da nga war c'est une matière un peu compliquée mais quand daal il gère. mais daal ñu leen ci yaakaar nañ a jël di xaar nag di ñaan nag yeneen épreuve bu ñëwee yomb ah ñu dugg ci rek macha allah. jëm ci jàmm participation ci jigéen ñi bëri na ren. bon ren jigéen ñi ni ci kii jot a am sat yi y' a plus d' absent chez les garçons maanaam jigéen ñi absent moo mais bëriwul nag waaw ah, quelque douze à onze filles bon garçon yi moom ay deux lay doon wala sur trois quoi jigéen ñi ñu absent moo bëri série yëpp nag boo ko booy laax waaw ah, L prime L2 ak donc boo xoolee taux de pourcentage vraiment am na 98 ou bien 98 quoi, de participation. Ça s'est bien passé depuis ce matin. Donc, composé filo bi pour serrer LI, L' avec L2. Euh, euh, S yi ñoom science physique lañ doon def mais dans l'ensemble tout s'est bien déroulé amuñu benn incident majeur pour le moment. par rapport ak euh, nombre de candidats yi nga am. voilà pour les nombres de candidats donc on a 381 candidats. Euh, répartissent comme suit donc S2 cent 210 lañ euh, l cent cinq 105 L prime yi 60 65 donc l cent yi 106 plutôt muy 381 au total. épreuve yi jours lay durer donc tey suba euh, samedi ensuite lundi donc dimanche bi dañ koy reposer léegi lundi la ñuy terminer incha allah. ndax am nañ fi ay absence yoo xamante ni noté nañ ko ay absence quelques élèves. waaw am na ay absence mais pour le moment xam naa chef de centre bi moo yor statistique yi. mais c' est sûr que dina am quelques absents mais xam naa du bëri trop. Ah, par rapport ak contexte Covid 19 bi ñuy defee euh, baccalauréat bi ndax mesure barrière yi gis nga ne respecté nañ ko. waaw voilà da ngeen man maa ngi takk sama masque donc nous aussi ñi ngi veillé si loolu que candidat yi nekk yëpp que ñoom ñu ngi takk seen masque donc am nañu aussi ay lave-mains am nañu aussi ay gel et donc yaakaar naa dans l'ensemble mesures yi ñu ngi koy respecté même si c'est un peu difficile aussi. bu weesoo loolu jamonoy nawet gis nañ sànq mu taw. waaw amul benn. waaw waaw waaw xawoon nañu tiit tuuti mais heureusement parce que fii moom defe naa euh, bu doon taw it defe naa duñu am problème parce que saal yi c'est c'est c'est yaakaar naa amul benn saal buy poser problème peut-être enceinte bi la lañ lañ mën a am problème mais sinon ça va